Ah. ah. dañuy dem demal. moo anta mel na ne Forza pare na. waaw Forza ngi noonu Abou Seva. gis naa léegi léegi. jëlal Forza ñëwal ci Forza. parce que dugg ci biir géew gi di wax ak moom ñaa moom. mi ngi noonu yor ay bagaasam. tey nag Fass tey. ñaar lañ andi ñaar lañ andi. kenn daan na mu des kenn ki. dëgg la. xaw ma nan lay def Forza ngi nii mbokk yi. mi ngi noonu tàllal loxo yi. vax la ngeen boo tëttale ko lu balan lu balan ndeysaan 2012 la gëj am defet xoolal lool te bi muy gëj a am defet noonu 2012 bi. waaw boobu Franc dugagul ci làmb. boobu Franc duggagul ci làmb. Franc 25 décembre 2013. la dugg ci làmb. la dugg ci làmb xaw ma 2012 25 décembre 2012 non 2013. 2013 25 décembre 2013. Forza ngi ni 2007 la bëre premier combat am dafa amoon ay blessures. waaw na ay blessures. loolu nag moo tax ak gars yi ragal koo jël. dëgg loolu moo tax làmbam yeex. dëgg mi ngi nii moo bëre woon ak Djilor. mi ngi nii moo bëre woon ak Ablaye Wade. moom Persa. mi ngi nii moo bëre woon ak Métérais. moom Forza. mi ngi nii moo bëre woon ak Modou Awatine. wala ma lool. moo ngi nii moo bëre woon ablaay Ablaye Wade. moo ngi nii moo bëre woon ak l'an 2000. ay waay mi ngi nii taxaw moo bëre woon ak Jordan. Oh. moo bëre woon xale ba nga xamante bi nii mooy Pakala ñaari yoon. moo bëre woon ak xale bi nga xamante bi nii ndeysaan uh-huh. mooy Abdou Diouf moom kon tardement moo ko booleeg Franc tey ci lamb. tardement moo ko booleeg Franc ak Franc def ay preuve waaw Franc def ay preuve nag am ci deux défaites Jordan moo ko daan ak ki nga xamante ni mooy Pakala loolu la am ci lamb moo ngi nii daanaan la bi fi mujj fii mooma Pakala la woon Pakala jël tànk bi mu mbot ko mbotu jolal Gaston production moo ko tëggoon waaye jëlal ma Franc. xoolal ma Franc. Franc ngi noonu gisee Franc. mi ngi ci ñuul kuk. waaye Forza ko sut Forza ko ëpp tuuti waaye ndax ëpp ëpp doole neena na bi jot na Forza nee na eh! waaye père bi na andu fii waay eh yow mënoo wax ba bu mbëri pare mënoo leen a teeree pare waaye père andul boog. ñoom des fois dañuy duñ sóoraale eh. ko ba mu pare rek. noonu. esal nga jël ko. mu ngi noonu di fas ci ngeen. moom ak Edouard Dimle Dior ak coach Lato ñoo nekk ci digg géew bi. coach Lato ak Edouard Dimle Dior. Franc ngi nii Forza ngi xeex. Forza ngi xeex. laay. Moodu. waaw. nee ah! duma. nee na da koy lap. Franc ngi nii sukku bëtu oom bi. di takk benn sengoor ci kaw pooj ba. moo bëre woon ak Rens. waaw. bëre Géeñ Bambalaan. dëgg bëre xale ba nga xamante bi nii ndeysaan mooy jara de bëreeg Serigne Ndiaye de bëreeg Baytin bëreeg xale bi nga mooy caatu yoof bëreeg njaga doole oh. bëreeg Mbaytin wala ma lool bëreeg ngeer bu sab bëreeg Tyson de bëreeg bébé Saloum bëreeg soq lii mooy onze combat franc onze victoire loolu la am ak déem déem déem lay ratu noonu franc ak déem la yor noonu ah déem la yor carub déem carub déem edu dim la joor ko jox Edouard Dimele Dior a ngi noonu sëgg. musul dégg muñal moom Franc. 11 combats 11 victoire. musul dégg muñal. amul sans verdict amul match amul match nul amul sans te 10 combats yëpp wër ndomba benn bi rek moo dul wër ndomba muy moom ak soq. ŋoobu tegal ko 16. forçat de ngi yàggaayu. di jaayu. palmarès bi rafet na. ndeysaan jëm na ca forçat. jëm na ca moom. yor na courroie lii de croix la moom. lii de croix la yooyu la de ñoom. kere ndeysaan. ñoom yi. croix la ko woon de. suñuy mbokk la ñun jullit yi. dëgg la ndeysaan. ay nit ñu baax la ñu. waaw chrétien yi ndax dañoo maandu. tey boo xoolee xale yëpp ngi nekk ci nga xamante ni mooy seen di def seen communion yi. wala ndeysaan. am naa ci benn xarit boo xamante ne mu ngi fële ca ca ñàgg. ndeysaan ku ci mel ne Mati. doom ji leemu tey la communion bi ndeysaan. macha allah. ñoom yandu ñu ma si invité ay ñoom Brasia. ndeysaan. ñoom Yves ay samay xarit dañ samay xaritu njaago loolu rafet na Abu Sefa. ma njaagu kayiteer yi. waaw ñoom ñooy noobulu njaago yi. wallaay ndeysaan ñooñu waa kayiteer lañu. wallaay ndeysaan. Père na ca géew ba. waa di wax ak moom. bi nee na ko na génn. ndeysaan. maa ngi nuyu Serigne Samba nduur la grand marabout. le grand marabout Serigne Samba Ndour. borom Touba. ndeysaan waaye Serigne Fallou Mara borom bu ragal dara. borom jàmm gën. waaye mbokk yi bu leen fàtte la 11 le grand marabout alaaji saa Touba mu baax mi moom lañ tudde drapeau wàllu njaay ko tuddee loolu rafet na ci arène nationale bu bi saa ñuy delloo njukkal mu nekk nit ku baax borom profit borom làmb ji borom parcelle 1 ba 26 borom Touba ñu ngi koy nuyu baax di siyaar waa Touba. mooy mbëru saa Touba bi. Franc ah saa Touba da koy ñaana gis naa tey saa Touba estat ko def ndam rek. ah saa Touba estat Franc. ma xoolaat ci suba suba si. waaw ñu dem kër Franc. ah ñu fekk fa Sa Touba ci biir kër ga. ah loolu am na solo kon. ma xam ne kon ah ma ne Franc bërëb Sa Touba la kon. ah kon loolu am na solo ndax wax day tungoom seede. day dundam seede dëgg la. te comme yaa fekke moom ma fekke bakkan lay laaj. bakkan lay laaj ko dama koo dégg mu wax. ah waaw. waaye kenn du Abu Sefa waay. ana moo Ndiaye directeur foo féetee. Serigne Mado maa ngi lay bëggee. ndeysaan di siyaar sama nijaay Moustapha Ndiaye borom Touba. sa waaja. Galla Fall Fall. borom abima bu rafet. mi ngi fi. Gal soo 94. waaw. amul yàqalaate. amul yàqalaate. fële ca Touba marché Ocass. ndeysaan. nit ku baax nee na ci làmb ji la bëgg a ah, ñëw boo gisee tol na ni forsa nee na daa bëgg a bëre nga naan. ah yee. boo gisee macha allah njool forsa. te forsa ëppee ko lu bari. moom nag fa mu tànne moo sori parce que nee na Sa Thiès rek lay bëre. nañoo bëre mbul. <laughs> jox abu yaa saxar. jox ko mbul. laa ilaha illallah. loolu du ma ko reporté. Ah. sëriñ Cissé mu sëñ Jili sama xarit la ndeysaan. ñoo ngi koy siyaar. moom sëñ Cissé. kenn du moom. nit ku baax la ndeysaan. waaw moom lu muy waxaat ni xanaa une minute de silence lay waxaat. mi minute de silence kon ñu déglu. nañ jug taxaw def ko. mi ngi dem Abou Sefa ñu ngi xool ñaari mbëri Modou ñoo ngi leen di xool ba xam ni nan cey Modou Anta Borom sans frontière cey Abou Sefa makan nee na la mënoo nekk Abou Dollar <laughs> neex ba ma doon Sefa rek ngay nekk Sefa xam nga nekk Sefa Sénégal moo gën waaw Sefa indooru ko wecc ko dollar de boo ko fi nekkee da ngay sonn damay sonn nde marsul fii wutu wecc damay sonn ci réew dollar te moo njaay directeur lay marché ah. waaw def live borom bësal sem borom lamb diaspora Mbay Toldo Serigne Ndour ñu ngi leen di nuyu. Grand Laye États-Unis Aliou Borom Ramdan Couture. maa ngi koy siyaare Aliou Borom Ramdan Couture. nit ku mën a ñaw la sama xarit la sama waay. Babacar mut la ma xoola Fadam <laughs> Fadam dee ngi mel ni ancien gloire bu tànk yi <laughs> ak Fadam tuuti yoon duroo tuuti kanam nag ak Fadam. arbitre yi dugaat nañ ci géew bi de. bu la Forza xoolee. ah demee la faram faram laay gis ci moom. soreew ñu de waaye Forza wu Forza dafa ñàng. Malick a noonu arbitre bi duggaat na ci géej bi lu ñuy discuter. génn nañ. génn nañ moo doon. Franc Fadès lii mooy lamb wàllu teen la. dëgg ku ñëw ca pind ba ngay yem. wax ju bari bilaay matu ko. werante bu bari bi ci réew. nag ku war a xeex la te sàmm ay tànkam. te bu dee xeex nag na def attention parce que Franc day remise. def na à distance de. waaye xeex dina ko may dara ci combat bi. waaw Franc nag xam naa ne bu arbitre sifflé day diriger Forza jëm koo dóor daw jàpp ko sol ko naax. jëm koo taf ba xam Forza da koy mbot wala du ko mbot. arbitre baa ngi consulter ay ndax pare nañ wala parewuñu. pareeguñu de. pareeguñu. Babacar am na lu mu waaw. arbitre sifflé na mbokk yi. ku si dafa jum nag mu doon ta. tey dimanche 21 mai 2023. Forza mu fii ci arène nationale bu Pikine dëgg la Franc Jambar Wrestling Academy Forza écurie bu gaaw nag laa gis nii baa ngi nii non bu arrière amut waaw combat bi nag ay stratégie la war a def ay déplacement latéral di ñam cross ak gauche waay tée droite bi ba Franc jaay mu doog ko ko nag ah ah ah jàpp na ko waxal naa la ko jàpp na ko takk takk bañ na faq faq faq rëpp na rëpp na problème ay waay Franc. Falaake Falaake Franc moo jël ko daan ko daan ko de. daan ko jëlee bu rëy. ko. ay bi daan na ko. mais na bi bëri na. bëri na ko bopp bala bopp samp bopp samp. Franc njaago ngi noonu. douze combats douze victoire. douze victoire moo ma trépied bi.